léegi ba ñuy ñëw def ni ma fallu xam nga basil tax ma bëgg ko da wax ci man ti gisuguma bas señ bas ñass def ni ma li tax mu bëgg la neena na def li neena na ji la ñëk Cheikh Ablaye neena na wax ci bas man mi xamna limi wax señ wax xamna limi wax neena na mu séré ci señ bas ñass neena na am lo xamni neena bu nekké te waxoo ko ki ñaan day daal di dugg nee na Cheikh Bass mii nee na nit kese la Cheikh Ablaye nee na boo déggee nit kese mooy nit yàlla nee na nit bu sellee sëñ bas nee na ca xol ba nga koy xamee Cheikh Ablaye nee mën na laa waatal ci alxuraan ni nit ku baax na Cheikh Ablaye Diop nee na ku sëñ Bass mii ñaanal. aajo fajul man bu sa aajo fajul day wax ni. na nga ñëwee la. nee ndax xol bu rafet mooy lépp. te yàlla defal na ko. Cheikh Ablaye Diop nee na nangul na sëñ Bass Niass ci lii muy def. Cheikh Ablaye nee na boo fàttali ko. nee na waxam benn la. nee na mës a dem ci tànt yëkkati micro wax ci ni dëgg la. nee na tey nag moo ko def ci kanamu public bépp ak caméra yëpp. nee na xam li ne ci moom la ndax nit ki bu la nangulee loolu la yàlla defal da ngay mën a wàcc yàlla ni moom it am na lu ko yàlla defal nee na bu newul woon ci yow sëñ Bass du ko nangu nee na ndax bari na ñoo xam ni dañuy wax ci suuf bu ñu paree woo ko ngir bëgg a xaritoog moom ay ree jàpp nee na waaye sëñ Bass mii nee na moom moo ko def xarit nee na Cheikh Ablaye nee na ñëpp seere ni sëñ Bass Niass nii xaritam la nee na ca kanam la jëm nee na am na lu mu sàkku ci sëñ bi nee na loolu suba la incha allah jërëjëf kon sëñ Bass bisimilah. si am ta daaru salaam si xam juub yaay borom xaas liggéeyal nga sunu borom moo tax mu jox la xaas di faj mbir yi ak soxla yee ñu def yëpp mag nga waaye waaye Serigne Bass yaa bëgg Serigne Saliou am si xam lay juub yaay borom xaas liggéeyal nga sunu borom moo tax mu jox la xaas di faj mbir ak soxla yee ñu def yëpp mag nga waaye waaye Serigne Bass yaa bëgg Serigne Saliou. Aziz. réew mi yëpp buñ xamoon borom xaas dootuñu seeti maaraañas waaw nañ ma may. Ya. nañ ma may nag. man duma tricher duma wax lu dul dëgg. te lii may wax ku yàlla dimbali daray batin bu dee baatin am ba sang bi mi ngi ko may wax ci koor gi lañ narona def ay mbir ngir gise ndaké boba yaay ñew ci gënt bu amul li yàlla na dox wallahi deug la deug la mu ñew ci jumaa ji ci 4-4 bu ñuul ana alpha ba boba ak war warna def at mané ne man luma bolé ak seigne abdullah Diop khas bama koy gis ci gënt wa rabbul kahba ndaké ñew gi ni lay démé ci ñewin wi muy borom xol bu sel gis nga lim ma defal dane ma bu ko kenn yëgee ma bala ci ay teranga ma ne ko sëñ bi teranga dañ koy weer ndax Cheikh Ibra nee jëf yu bax yi dañ koy weer ni am pot gi nak tay moy sid yi ñew Cheikh Ibra lim gisoon sori na def lu bax sëñ bi dañ ko wara fessel ba ñepp dégg ko mu lima ma li lay xam nga yooyu sax man nak gis nga jëru ko waaye maa ngi feddali sama tiant ci mom mbeur jóob rakam bima ne ko ni la ko ko waxe ci vocal dama ne ko mangi sukku samay tank di ram di la ñaan ngir nga teewal ma ci sama bis bi mune ma bay li ngay wax gis nga lima ne ko jak limay yeg ak limay gis dama japp ne nit ñi yëguñu ko walla gisuñu ko waaye yenn ku fekke ne am nga dara yalla di yeg wallahi kumay sét ci xamula ku may seet si wala nga may ñaan ñaanloo wallahi ëpp nga ci ñaan mm. waaye mënoon ngaa toog rek ku xëy gis la ajoom faju nga fatu mm-hmm. ndax loolu dafa nekk ci sa jëmm nekk ci sa ruu waxuma ngir dara li yi am lépp am naa ko mm-hmm. waxuma nit ngir puukare ndax cant fi ak nuruwul kañu des na mm-hmm. li tax ma koy wax ci kanamu Cheikh Abdoul Aziz Fall mi fii la safe ndax woy juram moo ne ma lii jaay Bachir am na njëgam Mm-hmm. waaye dañ la koy may kon naar bu ñuul baa ngi nii ah waa ngañ suñu waa ji ay eh, waay nii lu ko yàlla def moo tax ma bàllaay sa jërëjëf guddi na te buñ toppee wax ji man jëwrin kon da ngay tëj rek bu ko defee ah, waaw waaw waaw luy leer leer na luy rafet it rafet na mm-hmm. kuy gis ku rafet xam nga ni kii day ñaan sëñ Ablaye Diop mii day ñaan mm-hmm. sëñ Mara Niass mii day ñaan bu sëñ Mara mënee amee valeur ak honneur ak grandeur wax ni ndax nañ bàyyi xel ni lii muy def grandeur la nag man damay ñaan nit ñi ñu ngi def publicité pour wane seen ñaan ak di wax ni dañoo xor xalima moom mu ni

325 68 20 boo bëggee liggéey bu xarañ liggéey bu tegu ci temps am taalibe gaaw efficace contactel Xaadim Njaay da ngay am la nga bëgg ci liggéey bu set wecc